ko El Hadj Bargaay loolu la tëgg nag xarit loolu laa ko may sama mag sama xarit yow yaay sunu papa ko mu toll mën naa am ndam muy Omar ak Fatou lii ñëw ñu tuddee ko chef de l' état mu dugg ci biir kër ak ndono di ma baawu mii lu nekk war nga koo mën a am Iba lu ne war nga koo mën am baax nga gore bi yéen a nangu ngaa partage lii sa doom ji am lu ko lu mu war a mën a am la ci sa kër lu juddoo ci kër sa biir kër war naa mën a am ndam lu ne rawatina nag ñu ko fekkee rawatina ñi nga xamante ne ñoo ko fekke surtout la góor jóg bii toog maa ngi lay dégg mu ne bàyyi ndu ko gërëm doom bu amee ngërëmal bàyyi ngërëmal sa baay moo jur rek war naa mën a barkeel waaye alaaji papa Diagne kaay taxaw fii benn ak man la

te yaa ko yor yor bu baax ba àndoon ak moom mu doon sa xarit doon sa kóllëre ngay def lu baax bu dee ma am mbégte ci yow waaye dama ni surtout dama bi alaaji baax la ñu fa wax ci moom waaye bala nga wax ci moom ànd dafa neex waaye booy ànd da ngay ànd ak bu baax Mamour Diallo muy toog Mamour ak Omar danoo bokk lu ne ak mu jot am lu jóge ci Mamour ñëw ci man jaar ci Ibou Baaw nii Mamour. Ibba Baaw moo ko moo ko yëngal. te les yow Aliou la woon Alpha Touré Fara Gomis fàttewu ma loolu. war nañ ko nga yem ci football bi war nañ ko ci football sax da ngay nekk champion du Sénégal. loolu yëpp ci course bi nga doon doon borom nga ñaan yi ñun dañoo bëgg suñu xol dafa sax moo tax ñu ñëw arrêté ko. CNG mooy alaaji Cheikh naa nag jiite ko ànd ak sama bopp ndax ñii ma maa leen mën a wax fekk seen jamono maa leen mag di ànd ak seen mag ni maa mu jëm di football foyer ba mu ma dëkk ca a nekk sama yaay jur sa nekk sama papa Cheikh ñan di fa ñëw nekk rek ndey xadi dafa ne Sénégal kenn du ko wax te tuddoo Lat Dior loolu mënul nekk nee na bari na loolu doy na lool ci jikko ci jëf ci fit li mu def suñu ko defee xoolal suñu fekk ñu toog mu ñëw indil ñu fa teranga te jëlee la war a jëlee teranga wax ne moom moo yóbbul jëlee teranga fàcc kontaan nañ ci. waaw bi nga xam ni lu jëriñ jàng te mooy ndax yaa ngi ànd ak Jules Diop kon def naa ne bés bu toll bu toll kon moom Cheikh daal li ñu ñaanal mooy liggéey bi ñu teg sa loxo ak li ñu yaakaar ci yow ak fi réew mi toll ak liggéey bu rëy bi ngay liggéey am ko sa soxna fii naa am wàllu jubóor yu bëri woon man yàgg naa liggéey ak CNG dama daan dem fii ñu ne ma. réew mi fii ma ñëw fii ñu ne ma lu tàgg leen fii waaye loolu ñëpp bu nga ñëwee nga ko jënd. ba nga jiite ba léegi loolu amatu. waaw lépp loo xam xam ne noonu nga mën a demee ku xam sa waajur xam sa yaay xam sa bàpp bàyyi nga sëriñ bu mag boobu bu ñëwoon ca Dakar seen kër rek day daw. waaw bu dalee kër laaj bu mag kat. kon loolu lii ñu nekk dañ daf koo attan te ba ngay xale ba léegi dañuy am jom. dañ daan xam loolu dañuy am toog ba seen kër gi nga mën a am entraînement soo ñëwee ne ma ñëw naa ko ñaari mbir laay dugal su ma la dugalee nga dugal ñaari kon kon yokk ci tur si sii. moom moo tax ma ñëwaat yow. moo jënd état moom ñaar fukki million ak juróom. mettre à la disposition du CRG de Louga. ma ne ko loo ci jublu. mu ma damaa bëgg la racheter région bu Louga. yokk ba ñëpp yëpp yokk nañu. ndax Omar Bawa sama rakk la maam moom ñoo bokk bokkale maam Alaaji Cheikh suñuy waxtaan tey jël fi si béy bi nag gayaa bi nga xay nag moo gañe tey muy Cotonou 2 ca Cotonou 2 ci boppam Omar Bawa sàll ko mu bëgg leen mbooloo mi ni fasul ndono la ndono Falaam yaa ñu ko jur Moussa Bawa nga nee toog moo ko jur kan mooy Moussa Bawa mais daaw la bàyyam juddu aw faal fëri sala faal fëri ñoo bokk ndey ak baay fëral yomb joojo ndax ak yomb joojo ak yomb joojo bu mu guraan di dencaloo ndax ci mu demee maa demee maa sàmm tàmm Moussa maa ko fekkee Alaaji Mbay sa baay mu daan ànd Moussa Yacine Mbengue ma Yacine Mbengue jur awa Fall Fari Sala Fall Fari Faye ak Joma Jojo naka ak Joma Jojo ak Jom Jom ak Joma Jojo bi mu grand daanaka bur mu dina mel maa joor damel maa sàmm tàkku ngundu ñoogu yaayu ñoogu tabara ñoogu yaaxobu ñoogu ñoogu maa jabar jam daal waaye nag tey sarak Omar Ba mi nga xam ne Iba Kole Ba mi ko jur yàq nga rëmal bàyyam loolu la grand doon wax léegi wëlbatiku nag am la mu def bi muy loxo bi bi loxo bi CNG duggee ci loxoom ba dëgg bi ak mu mu dugg ne ci ceeb ko bàyyi ñu ne ko doo ko ba yaa ci doy kooku ma ñu bokkale baax te lu mu mës a daawoon bu mu paree mu du fanaanoo benn bopp waaye kon nag bu amee nag doom jee di Mamadou Mamour Diallo di président du mouvement Dolli Macky Sall ca Louga di inspecteur des impôts et des domaines ñuy war di dawal di lu may kër ñuy tabax di dëkk di lu may million ñu faj suñuy aajo bu dikkee ci biir mbooloo mi jàmm nañ ci sergent bi kenn ku ne war na koo xam rawatina yow mu nga xëy lu tumas la sakkara man ko ma bëgg yéen kilifa yi fi ne ngeen jëndi fas ndax ngeen raw grand prix chef de l'État 1965 la Njàmbur Njàmbe Njaay 1966 Coba May Alaaji Dudu Gueye 1967 Geesar Assam Diouf 1968 Wéetu Gaynde Dun Njaay Mandax 1969 Seynabou Sow Biram Pulo Sow 1970 Mbeen Lam Magan Njaay 1971 waxu buur Ousmane Fall 1972 73 Mbeen la Maguette Ndiaye 1974 yu moom moo ji Alaaji Oumar Ndiaye Bayax ca Louga 1975 Caroline Faye docteur Babacar Diop 1976 Mouride Sadikh Alaaji Assane Ndiaye ca Yacine Ba ex jeune griot dem si yàlla sa alaaji Omar Sam Waay moo ko moomoon 1978 étoile filante bu njaw ma Koddu Diop njabootam a ngi ci biir euh, cérémonie bi Aliou Diop a ngi toog ci wetu magam Bàcci Diop Samba Koura bu naa ma Diop a nga nee toog 19 mystère Papa Aldemba Mbaye 1980 Mami Samb Ibrahima Samb 81 82 Jamalay 2 professeur Sakhir Thiam 83 Amin Ndaw Mayoro Ndaw 84 Jamalay 2 professeur Sakhir Thiam 85 Ndeye Sokh Sonar Alaaji Diagne ca Louga 1986 Aminto comme professeur Zahir 1987 Mam Illo Monsieur Ndiaye Mbaye Anta 1988 capitaine Thomas Sankara Meïssa Ndiaye 1989 tonton Djibril 1990 Thomas Sankara Meïssa Ndiaye 91 maréchal Moukoutou. Alaaji Oumar Sangoy 92 première dame Badara Lo 93 Serigne Mansour Ousmane Camara 94 Malaw 2 Abdoulaye Gueye Balda Ndiaye Amin Diop 95 Serigne Bayu aram Yacine Diama moko mom ñu di ko wax docteur Fall 97 law la ci professeur sakir Thiam law la ci Manétam 98 Tyson Badara 99 Bidéew professeur Sakhir Thiam 2000 Fatilan professeur Sakhir Thiam 2001 Birima Mbuy Abdou Salam Gueye 2002 nee ka professeur Sakhir Thiam 2003 Bourag Junior professeur 2004 liggéey bu fac professeur Sakhir 2005 bac professeur Sakhir 2006 bac professeur Sakhir 2007 2005 2005 Seneca, professor Zahirka. 2006 bac, 2007 bac, professor Zahir Thiam. 2008 Presidente Cheikh Tidiane yaa jóg a taxaw. yaa jëy doomu ren d'état Nasrullah moo raw grand bi chef de l'état ca Kébémer. 2008 yaa jëy ñëw rawaat grand bi chef de l'état 2008 2009. 2010 taamu yàlla taal professeur Sakhir Thiam 2011 Babader professeur Sakhir Thiam 2012 Baye Bass Azar 2013 Dar es Salaam professeur 2014 Khadija professeur Sakhir Thiam 2015 Linguère bi professeur Sakhir Thiam 2016 2016 Dar es Salaam dellu si rawaat. 2017 ñu dem Fatick président Cheikh Tidiane ñaa ngi fas ñu naan Betty Bao raw ci grand prix chef de l'État 2018 ñu dellu Fatick macha allah bu Ndiame Ndiaye raw. 2019 ñëw Omar Bawa Junior raw grand prix chef de l'État.

fay ñëw Cotonou ba daan rawanteeg bu Boy ba vers les années 1961. Cotonou Flavia la baronne de Sala la ñuy wax yaayam mi ngi juddoo kër professeur Bao mu tuddee ko Thiebo Cotonou Flavia la baronne Dieynaba mooy yaayam ñu jël Dieynaba teg ko ci wàcci marché mu jur ki nga xam ni mooy jéego mu dem kër président Cheikh Tidiane Niang yaram de Sara ñu ko teglu ko ci soleil de moom doomu Rocky Martin la Rocky Martin la couleur nourrière de ce berceau li ko mën ni sans fixe la ñu jël ko teglu ko ci soleil de minuit soleil de minuit état Sénégal ñoo ko fi indi doomu John Quartz la John sa désolé lay sa désolé nos danseurs lay bàyyi Nos jeunes danseurs, ñerketik e baay ñerketik ñerku faros falaris ñu di xamal ni ku bëgg a siiw nga bëgg ñu xam la dee ba nga dem wuti fasu course tur yi ma lim fii dootu ñu fay mukk te dara waralu ko lu dul course fas ci kaw loolu suñu mag ne fi suñu mag di poète di écrivain ñu di ko wax Ara Mbaye tey nag discours lay def en français waaye na ngeen ko déglu bu leer nañ fas yi ma lim nag ku ci ne mën naa laa wax ban état mooy baayam waaye comme moomu ma micro bi te temps bi dafa xat ku nekk da cee bëgg wàllam dañu ciy capp bàyyi keneen mu capp di nuyu bu baax Omar Bawa Junior di ko féliciter ci jëf ju rëy jii nga xam ne def na ko tey di nuyu Modou Mamoun Diallo xaritam waaye nag di nuyu notre président national kooku mooy kan le président Cheikh Tidiane Niang borom cuuj yi cuuj un way na tey bàyyam moom mystère bu Papa Albert Ba Mbaye mi raw 1979 ñoo bokk benn ndey moom way na di bàyyam mystère la def di bàyyam cuuj deux usooy bàyyam cuuj trois Lengi na table baye waaye cuuj ka tera moo ko jur Omar Bao cuuj cinq douze ba moo ko jur ca ara national cuuj six doomu Sayas Kari la après nag la Adja cuuj ñëw nekk doomu Peter Berhel ak Bambi li duuf ci nag ci cin li waaye ñu dugal suñu mag ara mbay def discours en français poète may la ku ko jox cër jox ku màgg cër ala voici le micro. jërëjëf di leen ziara di may gan yi ñu toog ba dal. ay sa nga ñëw de. waaw waa kër Serigne Touba ñoo ñëw. sëñ Talla Mbacke moom ngi ñëw moom El Hadj Baara moom Cheikh Mamadou Fall moom Serigne Touba borom bi ànd ak Xaadim Gueye ak délégation bu mag. waaw. sëñ bi nañ ko may yoon mu ñëw na jox ko fa tey mu toog arabe bi discours yi en français. Gagny Sakho directeur général bu ONAS bu mag boobu mi ngi toog ànd ak délégation bu mag ngeen xam ni nag. ci mbaaw ñu ngi L'écrivain Olé Soinka disait Le tigre ne crie pas sa tigritude. Les baos répliquants disent Le tigre ne se pavane pas. Il bondit. C'est de Gaïma C'est de Gaïna. Omar Ragnima, Masel Muntaha la gëm. Ubis Cheikh Al Khadim. ma bëgg ko dama ni alhamdulillah ma kañ Cheikh Al Khadim doomi jaara bër alhamdulillah ma kañ Cheikh Al Khadim ndaw ci korok bu amoon ñu ko toppandoo mais la fang ñun ñëpp di jaajëf Mouhamadou Mbacke ñun ñëpp di jaajëf Mouhamadou Mbacke jaamu yàlla ak liggéey la jàngale jaajëf Mouhamadou nangu gi mu nangul yàlla moo tax mu aaral ko lépp nafsi wa diini sumaali wal wala yar leen liggéey leen ba am seen ngërëmal bàyyi alaa di mi yegg noonu xaw ni ko dekk ren ñu ne ko loo ko tuddee ne mouvement dolli na ko sàll daane dellu it musu nit ci cat yàlla ñu yàlla musal dama bëggoon fu waay toog ñu may ma lu def bisimilahi rahmaani rahim def ñetti allahu auzu billahi min sheytaani rajim bisimilahi rahmaani allahu samad lam yalid wa lam yulad wa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 Baye Ibrahima Baaw mi ma xam ne moom ma tuddee di Umar Baaw ak Baye Mor Ndiaye Baaw mi nga xam ne moom la meññ di doomu baayam ma fàttaliku en 1946 Baye Ibrahima Mboola Baaw Sooda Baaw maréchal Patin Ciss Alamou Ciss Mbacké ak yeneen ak yeneen ak moo ndax booba kër ga péye la woon ñun ñoo ngi jàng école ndax dañ def ci jamono jooju pain beurre amul woon pain chocolat yi amul woon dañ daan jàpp liitar ko mu set ñu def ci suukar ba mu saf def ci genwaal liibaru ceeb Caroline bàyyi ko quatre heures de temps mu nooy népp moom lañ daan yóbbu ca course bi loolu weesoo nag. docteur Bao doon na bàyyam man ñi boobu maa ngi ci football bi en mu dellu si waat ni ma taay bi Bao nag ku nga xam. Ah. maréchal Mboola Bao excellence. maréchal Pétain. Pétain ak ñeneen ak ñeneen. Ah, docteur Bao bos la. mu ne ma moom na ko ak yàlla ñoom ñëpp danaa leen fekk. mu tudd àdduna. ñuy dem nag di dem man mii nag nga xam ni mooy sama mag boo ma dugal ci fas yeew naa cinquante six fas yoo xam ne tabax na ñetti kër rëccu wu ma ko nag li am ba am mooy yàlla ñu doog a dogal nag. grand prix chef de dugg ci biir mbaaw fasu gañaa bu nekk am nañ ko nag loolu wóor na ñëpp loolu lépp ki ko fi indi muy sama doom di seen doom di Umar Baaw Moustapha Baaw magam am tutum jox ko ko daaw muy daw PDA mu ñëw trois ans raw grand prix chef de kon nag ñii nga xam ni nag yéen a fi toog tey jii te mbir moom indi leen fi damay commencé nag bi ma waxee historique bi nga xam ni fa muy mbaawoo foofu la jógee ci ay fas en 1946 ñoo ngi ci fas yi yal na yàgg li am nag solo ba des mooy damay commencé nag ci ñi nga xam ni Umar Mbaaw gërëm na leen mooy. le comité directeur des courses hippiques ca booba baayam sama frère Cheikh Tidiane Niang tàccu leen ci loolu mu àndandoo lépp ay vice président kenn ngi ñuy di Xaasim Diop ak ñeneen ak ñeneen ak Bàcci Diop ak ñeneen ak ñeneen ku lim juum wala jaay da naan ku lim juum déedéet mooy wax bi ñu gërëmee nag borom fas gërëm jockey yi gërëm entraîneur gërëm amateur yi mu am nag ñi nga ni nag maa ko xamal sama bopp muy mention spéciale boo xam ni Umar Baaw xam naa ko ci moom ndax xaritam wëllëre magam bii mooy Mamour Diallo tàccu leen loolu maa leen ko ñaan Mamour Diallo nag daf maa xool ba xool ma bu baax ñi ma góor gi jàng naa la wax nañ ma say mbir ma ne ko mu ni ma nag damaa bëgg yow mii yaay sama baay may sa taaw Umar Baaw di sa caay loolu nag

tey nag ak ki nga xam ne nag xaritam la muy daan saako directeur ONAS ak ñeneen ak ñeneen ku lim fàtte mais nag dafa rek tuuti may wax loolu mooy lan euh, course am na njëriñ ndax yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam góor gi Ibou Sakho nee yonent bi daf daan xam kalam di ko fompee ñëpp fës ñun nag loolu rek moo ñu ci bàyyi ci bala may daaneel nag danaa gërëm. monsieur le président de la république Macky Sall tàccu leen ñu ko ndax lan kus bu ñu dawalee grand prix bii nga xam ni moom la ñuy féete moo joxe xaalis bi nga xam ni moom la ñu dawalee grand prix loolu kon ak di ñu préparé hippodrome national kon nag ci ñu président Cheikh Niang gërëm nañu président Macky Sall sant nañ ko soxna aussi Marème Faye Sall grand prix ba ko koy defalee ci Louga président def naa ko di ma baaw jëlal fay kon nag li am solo la am solo discours bi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg am na njëriñ njëriñ li mooy wax gi nga xam ñi fi ñëw ñëpp nag bu leen lim Fatick ne Umar Mbawo gërëm na ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di ñaan yàlla nag grand prix bii ñu daw rek soobee Sëriñ Tuuba déwén ak jàmm ak salaam incha allah dañ ñaa des. wax ma ni ma naa ko. nee na. ñu ngi gërëm Mbacke Diop mi toog. Fatou Samba Kourou. ci yéen yéen a ngi sur les membres du groupe. te nee na teraanga boobu mu ngi la décoré. nga ñëw àgg si jël sa décoration. Mbacke Diop. Mbacke Diop. président soxla Aïcha dafa wax ni ngeen may ko la musique tuuti s'il vous plaît la musique Barke Samba Kouré dafa wax ni dama ni lii ñu gis tey lii ñu gisandoo tey musu fee am de dama ni dama ni Omar Bawo Omar Bawo lii mu am tey. moo ko may boppam. moo ko may boppam. Omar Bawo. Omar Bawo. gis naa fi ay yoo xam ni. gis naa ci détail bi ay kilifa yoo xam ni. ci biir saal bi. ci biir saal bi. Omar Bawo. Omar Bawo. bu meloon ni mel. su mel woon nii ko yàlla mel loo mu mel ni. mu ngi fay indi kenn. dama ni. ñun borom fas yi. ñun borom fas yi ñun tur si si. Omar Bawo. Omar Bawo. joxul kenn. joxul kenn. dugub ak ngooñ. dugub ak ngooñ. dama ni. dama ni. lii mu am tey. lii mu am tey. man de yàlla ma ko yàlla. man de maa ngi koy ñaan yàlla yàlla ma ko yàlla may. Aliou. dama ni. dama ni. gis ngeen. gis ngeen. course hippique course hippique ñun ñëpp ñun ñëpp. ñoo war a bokk ndey. ñoo war a bokk ndey. ñoo war a bokk baay. dara xamul suñu diggante. ñoo war a yëkkatee doo di tegaloo. dama ni dama ni. course hippique course hippique. man bàcc Diop man bàcc Diop. kër yëpp kër yëpp. fas yëpp fas yëpp. sama fas la maa moom te ñëpp xamoon na loolu tax loolu laa doxal. dama ni dama ni. nga yaru gis ngeen yaru lu mu la mayul lu mu la mayul dara du la ko dara du la ko te Omar te Omar Ndao kon li mu doon wax kenn mënut a wax ci mbooloo mi nii réew na Omar réew na Omar muy xale muy xale muy mag muy ndaw kenn mënut a wax réew na yaram rek day wax ak tey gën a mën dama ni Omar Ba Omar Ba man man sa bopp bàcc bàcc boo ko fekkoon. fu boo ko fekkoon. mu am lu may def. mu am lu may def. man ko Omar. may ko Omar. tegal ci suuf tegal ci suuf. da koy teg ca suuf déglu ma. maa ngi koy ñaanal yàlla nag amiin. yal na ko yàlla may. yal na ko yàlla may gudd yal na ko yal na ko yàlla bàyyeeg njabootam ak ndeyam ak baayam. kër baayam. kër am naa fa cër. am naa fa cër. jox ma cër. muy fii ci ma cër. kontaan naa. kontaan naa la. kontaan naa ci président. kontaan naa ci président Cheikh Niang. yàgg naa wax Cheikh Niang. yàgg naa wax Cheikh ni ko. man bàcc Diop. lii la dégg. lii ñu la dégg. boo ko awuloon ci yoon. boo ko tegul woon awale ko ci yoon. du ma topp sa ginnaaw du ma topp sa gannaaw de. man du ma du ma du ma raay kenn. man du ma raay kenn gannaaw. lii ñu ko jox. lii ñu ko jox. teg na ko ci yoon. teg na ko ci yoon. ma nekk ci gannaaw ma nekk ci gannaaw. bis bu ko jalgatee. bis bu ko jalgatee. war naa ko gannaaw war naa ko gannaaw. surtout la jooy wax ak yéen de. gërëm naa ko gërëm naa ko nag bu wér. sant naa ko sant naa ko bu wér. grand prix chef de l'état ren bii. le ministre des sports le ministre des sports. ci lamiñam ci lamiñam. ma dégg Thiès ma dégg Thiès. la ko wax la ko wax. mooy gërëm nañu. mooy gërëm nañu kii toog di Cheikh Tidiane Niang président du CNG. jërëjëf jërëjëf kontaan naa merci beaucoup. mbooloo mi. président Cheikh Tidiane Niang mooy wax nee na kado bii Omar Bawo lañ ko jox parce que moo gagné grand prix président Cheikh Tidiane Niang moo lay décoré. président Cheikh Tidiane Niang moo lay décoré l'orchestre préparé leen seen balance préparé leen ak kado bi ñu ngi koy jox Omar Bawo Junior président Cheikh Tidiane Niang président Cheikh Tidiane Niang mooy Sabel Dieng nekk. doomu alaaji a jeng wala bala loolu danañ ci sànni ñaari kaddu rek doo ko dugal sa benn ñu ngi nuyu mbokk tur fi si yëpp di nuyu ñi fi toog Omar Ba moo jël jërëjëf président dina ko félicitation gorom la xaritam la léppam la jërëjëf jërëjëf léegi ñu baal ñu baal ñu rek ma ñu fii léegi ñu baal Omar Ba moo joxe moo joxe Pape Seck Pape Seck ñëwal borom a borom mbaaw yoolo Omar Bawo di jëkkoole nee na mooy moo jëkkoole Omar Bawo Bab Seck moo jëkkoole Omar Bawo kii nag moo yor fas yi mbaaw di def équitation équitation boobu nga xamante ni moo course hippique benn la moo tax moo jël trophée bii nga xamante ni naaru góor la jël ko di ko jox Omar Bawo a yoon su paree ñu jox ko ñaari kaddu ak tourné

retard et baisse Godolphin à l'ensemble des acteurs de la filière en mon nom personnel du Bokk Karaoke. merci beaucoup. jërëjëf mi ngi doon déggoo ba Maodo léegi ñu baal ñu ñëpp dem toog ñu jox Sabel parce que guddi na te dafay dem tegi soirée nañ ñu baal rek nañ ñu baal rek jërëjëf nañ ñu baal rek jërëjëf léegi nag. na ñëpp dem ku bëgg a xewlu rek xewlu yaa ngi noonu léegi nag ñu ngi gërëm ñëpp président Cheikh Diagne ñu ngi gërëm bu baax a baax waaye bu wóor moom ci li mu fay yëpp Omar Ba woon ko jël delloo ko turandoo muy professeur Bao mi nga xamante ni moo ko dugal ci course bi nanu daj loolu professeur Bao tey moo tax ñaan course moo jàppale jël fas dugal que way juróom góor yi di ko di ko bàyyil fugal nee na ñu julli ci fas ñu tudo ma é tuuti rek s'il te plaît ñu julli ci fas nee né, na né, ñu tàggat leen ci fas nee né, professeur Bao nee na moom Pape Seck mi mu décoré léegi nee na de quem njëkk a indi leen doyoo jëlee leen France indi leen Sénégal nee professeur ele vai sa gëm nee nem moo tax teew campé bi nee nem a mu nem é na fu sori moo tax mu jooyee nee na biir xolam nee na fasan fas bi magam Moustapha Baawo nem a ko jël jox ko nee na parce que à la base professeur Ba moo ko jëndul woon mu tuddoon Jéego mu nekkoon rek du fel nee na mu defoon ko perpétuel moom Omar Ba mii nee na bi professeur Ba moo génnee àdduna nee na mu yëkkati boppam Cheikh Niang nee na jox ko fas bi nee na moom mu tuddee ko Flavia Labron ak Amina Bledo nee na fas boobu. nee na ñoom ñu jël ko jox ko Moustapha Baawo. nee na ba Moustapha Baawo am ci ñoom. nee na doom bi ñëw ci loxo mu tudd Kutulu. nee na loolu moo ko jooyloo. tracé bi fas bi jaar nee na looloo ko jooyloo. nee na fas bi papa papa yi maama maamu fas bi. nee na maamu fas bi. ak am yaayu ami yaayu ami uma. nee na ak yaayu ami uma bi nga xamante ni moom moo ko moom. ñëw Sénégal nee na bi ñu ñëw Sénégal. nee na boobu professeur Ba yéen a ngi mi ngi sukante. mi ngi nekk en France. mi ngi nekk en France. nee na muy ñetti oto la mu génne leen. muy wax ci Matinee. ak Flight Matinee. Flight Matinee moo ñu faral jóg. nee na donc pour ñu bu mais Amina Ouma jël troisième tam ñoom ñaari fas yéen ñoo ko ñaari fas yooyu yëpp. nee na seen benn yaay ñoo bokk benn baay. nee na moo tax mu jooy. parce que parce que professeur Ba en 1996. nee na boobu mi ngi jàng. la ko def propriétaire. ci fas bu ñuy wax bandal. la ko ñoom dama kebe. mu def 11 courses 11 victoires. nee na mu nekk juin boo xam si ne ren de la saison. nee na moo suñu sekk li ko war. nee na mu tàggat ko ci fas. nee na impliqué ay valeur. nekk benn. nee na yàlla nag ak dogal ak seen ak nee na yàlla nag ak dogalam nee na mi baa ñu ak dégloo bi ji nee na yàlla di def nee na Omar nee na aw na lu ci guf nee na Faye Ba aw na lu ci guf nee na muy grand prix premier ministre grand goreem ci yow mii la ko yàlla jaarale. loolu nag moo tax mu jooy. nee na loolu nag moo tax mu jooy. li tax mu jooy dafa xam ni professeur Bako nee na fu mu dëkk. xolam sedd na. tàcc na loolu. professeur Bako fu mu dëkk xolam sedd na. <laughs> Ah, nee na moo tax tey lépp professeur Bako la ko gëneel. jërëjëf Omar Bako. léegi nag sabel la ñuy dugal dafa guddi sabel la ñuy dugal na ñëpp toog ñu dugal sabel parce que mesure waaye di remercier baax a baax Xale Ndiaye doomu président Macky Sall mi ngi doon toog àndanteeg soxnaam di remercier ba Koungheul bu Kodou bu Naama yooyu fi nekk Ndao Awa Seydou Ndiaye ñu ngi lay baax a baax di nuyu mbokku turquie yëpp nañ ñëpp jug nag jëm ca bu fekkoo bu fekkoo ma sëñ Xaalim Xaalim Gueye bu Alaaji Baara dafa ñëw àndanteeg sëñ Mawla Mbacke bu Alaaji Baara àndanteeg Cheikh Cheikh Thiam àndanteeg délégation boo xam solo ñoom boog nii bu ñëwee loolu dinañ ko wax Xaalim Gueye bu sëñ Cheikh Mawla Baara taalibe sëñ Baara bi nga xamante ni sëñ Baara ñëwul ak bu bàyyi ñëwul sëñ Baara tamit ki nga xamante ni dafa mara mooy Xaalim Ndiaye mi ngi fi toog fa macha allah délégation yu bare bare bare ngi nii waaye tey jii tey Baye Samba projet bi ci la bokk tur bi si yëpp maa ngi wax ne kontaan na seen teewaay ba ci commission commission bi nga xamante ni moo ko mën a waaw seen diggante alxames ak ajuma bi toxu nii waaye tey li sama ñu ngi toog fii di ko ànd ak avec la délégation Warsaw mais Souleymane Diagne ñëpp ñoo xam si ay tournée si seen benn tey ñu ngi leen di sant Omar Ba mi ngi leen di sant di leen gërëm waaye yaa ngi nit doxamaa saw ñu ngi leen baax a baax sa taxawaay yëpp a nekk da nga jàpp sa mag jàppale ko taxaw ñu la su ñu gis baax bu ñu tuddee gis ko yaa sama yaay bu baax bi nga xamante ni moo tax Baye El Hadj Mbaye ci biir course épique gagné grand prix chef de l'État muy nak ndam lo xamné ne la am sank deug naa ngay lim ñu fi am. mo amé ko tam ci condition yu yu jafé kon nak euh, je pense que goudi gi tay rafet nañu ñëw fi sargal ko félicité ko waye man mënu wax ci Omar Bao. Hmm. ndax sama rakk la te daf ma jege lool. euh li mo mëna wax rek moy ku baax la ku am yar la ku am teggin la ku fonk ay bokkam la ku fonk ay waajuram la kon nak ndam li mu am tay mérité nako lol lol lol lol lol lool ñi ngi koy ñaan yàlla na jik amiin ngi ci occasion bi nak di féliciter bu baax baax le monde des courses hippiques di ci jital le président Cheikh Cheikh ñan nga xamni ñi ngi liggéey ci course liggéey bu am solo ah ñu ñi itam en tant que responsable politique en tant que en tant que repre am ne ci réew mi ñu ngi góorgóorlu di jéem a dugal suñu loxo ci biir course hippique bi

waaw xam nga loo gis rek dafa am lu ne ci bopp ba grand prix bari na waaye grand prix bii nag grand prix président de la République moo tax nag ku ko ku ko raw faw ñu sàggala faw ñu defal la lii te président Macky Sall ku ne xam nañ dafa bëgg fas partem bi nga xam ne mooy parti APR fas moo ci ne te fas fas dafay raw kon nag ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm te gis nañu bu baax a baax effort yi nga xam ni ngi koy def ci biir fas joxe na engagement pour defar euh, nuñ koy waxee hippodrome national président Macky Sall ku ne xam na ni engagement bu mu wax dana ko def kon nag ñi ngi ci ñi ngi koy félicité bu baax a baax itam di ko félicité ci grand prix bi ndax grand prix bi grand prix am la Omar nga xam mi ngi signé 2 sur les recettes brutes de la loterie nationale sénégalaise Nous avons waaj a dafal pose première pierre hippodrome national comme Mamou ni ko Mamou c'est un acteur de la filière ñu bëri daf ko dañu xamul ni propriétaire de chevaux la day def élevage ay fas yu bëri présentement di présenté ne nañ di dimbali filière

la sama xarit la sama doomu ndey la waaw maa ngi moom li ñu dépassé dafa dafa dafa dépassé cadre bi waaw donc du bàyyi itam yëpp tax ñu bees ni di ñëwaat parce que ñun béyuñu woon mais léegi doo dee xool jeunesse bi ñu ngi jënd ay fas da fas d'un facteur de développement économique soo demee au niveau du lagos, bi nga à part le sel bi nga xamante moom la ñuy ci lac bi le le cheval mooy deuxième activité économique jockey bi raw fa la juddoo il a 17 ans ci Grand Prix chef de l'État bi am 1 million 125 mille entraîneur bi am 1 million 500 ci benn dimanche waaw facteur de développement économique la fas na ci yenn prix 20 millions 25 ñun nag par passion lañ ciy dem di amu yàlla parce que ay néew gi doole ñoo ci nekk ñu ba ñoo xam ne dañu dañ gëm fas di ci liggéey mu nekk seen ñaq loolu moo tax dañu leen jàppale waaw merci